ARTP ci 8 décembre bi ñu génn euh, jot na euh, li nga xam ne moom la ñu tuddee euh, certification à la norme ISO 9001 version 2015 ISO nag mooy organisation internationale de standardisation moom mooy def ay normes yoo xam ne mu tudd duppe leen norme ISO nangam nangam ISO nangam nangam ay numéro norme euh, ISO 9001 ISO 27001 ak et cetera et cetera euh, activité bu nekk rek daf ko créel benn norme waaye fii management de la qualité norme ISO 9001 version 2015 parce que ISO 9001 dafa am ay version yu bëree bari euh, ñun version bi ñu mujj bu ñu jël mooy version dernière version bi c'est la version 2015 jàppale ni ARTP bokk na ci structure yi nga xam ne tey jii après vérification après audit am na lijaasa am na certification bu ñu tuddee certification ISO 9001 version 2015 euh, lu tax ñu war a am certification lan mooy solo siw certification lan mooy solo am kayit bi wone ni euh, ki nga xam ne ñoom ñooy euh, organisme vérificateur yi Veritas après bu ñu defee audit wax ni ARTP càmbar nañ ko war na am li nga xam ne moom mooy certification ban solo ban solo la am euh, processus mooy li nga xam ne moom lay structure bu nekk di wéyee euh, pour que liggéeyam mun a jaar yoon euh, processus nag dafa am action am acteur am délai waaye processus balaa baax nga wax ci njëlbeen li nga bëgg a def waaye boo waxee li nga bëgg a def ci njëlbeen nga def li nga wax ci processus yi donc c'est des processus documentés avec des pilotes de processus yoo xam ne bu ñuy def benn mbir xam nañu kan moo koy déclenché xam nañu fan lay jeexee pour avoir le livrable loolu dafa nekk loo xam ne dañ koy documenter ñu xam ko waxtu bu nekk par exemple bu ñu amee réclamation damay jël juste procédure réclamation bu ñu dépla bu ñu déclaré rek bu ñu déposé benn réclamation walla ñu enregistré ko ci suñu plateau yi dafa am processus bi ñuy jaar boo xam ne avec des acteurs et des délais yoo xam ne processus boobu la ñuy jaar ba keroog ñuy am les réponses aux réclamations des usagers processus yi nag dafa am yu ñu tuddee processus cœur de métier ak processus support ñaari processus yooyu yëpp ñaari type de processus yooyu yëpp dugg na ci périmètre certification bi donc yàlla dogal na tey jii ARTP autorité de régulation des télécommunications des post pour la première fois bokk na ci structure yi nga xam ne càmbar nañ ko ñi ko càmbar ñu nekk ay vérificateurs yoo xam ne reconnaître nañu seen liggéey ñu càmbar suñu processus parce que dañ ci doon liggéey bu yàgg maa ngi fàttaliku balaa may jóge ARTP nekkoon na ci projet yi ma fi bàyyi woon processus certification bokk na ci projet yi ma fi bàyyi woon yàlla dogal ma fekkaat ko fi ma jël décision ak samay collaborateur que cette fois-ci il faut que avant la fin de l'année 2023 que ARTP jot lijaasam jot këyitam bi wone ni ARTP ses procédures sont certifiées ISO 9001 version 2015